Ndey Mariam Ndiaye. asalaamaaleykum mbokk déglukat ci dal leen ak jàmm coow laa ngi bëri nag bëri na sax mën nañu ko wax ci mirum Macky Sall nag ci walu mandam bi nga xamne mom ci bopam moko ko askanu kewum Senegal, wax ne dina ko wàññi jëlee ko na ci ñaari at indi ko ba ci juróomi at wa APR ñu nek ci biir benno bokk yaakar fu nek nak ñu ci yëkëti cadeau ñen ñi di rafetlu ñeneen ñi di wax na Macky Sall def wax li kay bi di Sud di mi ngi xamal ne njiitu rew mi nag di dinay dakkal ciow li ndaxte mom nee na daal dem na ba fu mu nek ni nak ciow bi dal di koy dépasser neena na fu mu nek ni jeex na tak na ñëpp japp nag ci cadeau bi nga xam ne nag moom la mës a fësal moom mooy ne dina wàññi mandaam jëlee ko nag ci juróom-ñaari at indi ko ba ci juróomi at Macky Sall ne li ni mel moom moo ko digoon askanu réewum Sénégal kon kay da ko fas yéene amal kon comprendre nag lu tax nag nit yi daal di indi coow nee na la ci gën a jaaxal moom mooy ne ñu bokk ci biir partem sax ñoom ñoo indi coow li ni mel loolu nag moom moo tax ba ca Sine Saalum nga mu nekkoon na ci njeextulaay bés bi Macky Sall daal di xamle daal ne coow loolu nga xam ne nag moom moo juddu jëmale ko nag ci wàllu réduction mandat am nañu ko dakkal nañu ko jeexal ba mu jeex tàkk ci biir cukalikaay bii di la témoin suñu natango yi nekkoon Macky Sall coow li fu mu nekk ni nag dem na ba ëpp ko loxo li mu munoon def kay moom mooy fexe nag ba daal di koy dakkal ci biir cukalikaay bii di réew mi quotidien ne Macky kay daal nay xamal ñi ko jege ndax ñi ëpp ci ñi nga xam ne tey jii ñoom ñoo bëgg mu def nag wax waxeedee ci ñu ko jege la ñooñu nag daal dina leen xamal ni fu mu nekk ni seen wax yooyu yëpp du jëriñ lenn Macky daal di leen ñaan ñu dakkal nag coow li te fu mu nekk nii nag nañu xam ne moom li mu digoon askanu réewum Sénégal dina ko def Macky ne leen mandat bi moom moo ko waxoon dig ko askanu réewum Sénégal mu xëy nag di ci def wax waxeet xalaatu ko loolu kay ay caaxaan la wante moom nee na du ko mës a def cuglikayi di jële quotidien ne kon léegi nag nañu jàpp ne ki nga xam ne de moom mooy Macky li nga xam ne nag moom moo juddu jëmale ko nag ci wàllu mandat présidentiel am daal dina koy ndar keppee ndaxte daal dinay xam ne daal ne fu mu nekk ni moom ci weeru mai bu atum 2016 dinañu xam ndax ci wàllu référendum la ñuy jaar ngir war a mun a wàññi mandat am wala boog dañu koy jaarale sa assemblée nationale dal kaddu yi nga xamne nak mom moom la rew mi dal di fësal suñu naataango yoo gay bi di Sud Quotidien indi na jexi jaaxa nak ci sen bop la ko waral mom moy ne dafa melni ne léegi sax Macky Sall ci yoon yi nga xamne nak dañ fa wara jaar ngir wañi mandam googu day dafa melni ne dara leeratu ci ti mom bu ñëk ba daan wax walu référendum wante léegi nak amna na jiixi ndax xamuñu ndax ci référendum bi lañu koy jaarale wala bok ci assemblée nationale yoo gay bi di l'observateur ñomit dal di am jexi jaaxa ci walu gi ni mel ndax ñay xamle tamit ne nag ci yoon yi nga xam ne nag moom la tànn ngir Macky Sall war faa mën a jaar ngir fexe nag ba ñu wàññi mandat am ba léegi dee xamaguñ ci dara ñu desandi ak njiitu réew bii di Macky Sall ndax ci bi di ngi ñuy fàttali ne kàddu yooyu xam ne nag ma ngi ko doon fësal ma nga mooy bi di Le Soleil mi ngi ñuy xamal ne ci diwaanu Nioro kii di Macky Sall ma nga fa woon foofu la daal di xamle ne nag dinañu yeesalaat yenn ci ay tali yu bari yi nga xam ne nag moom moo nekk ci Sine ak Saloum ñu wax ak cublikaay bii di direct info ci ñi bokk ci biir parti démocratique sénégalais te fu mu nekk nii nag caabi féete leen gannaaw autolekaay bi di direct info mi ngi ñuy xamal ne ñoo ñu dee te ñu war a weesu nag ñaar fukk nee nañu daal ñoom fu mu nekk nii dañuy xiifal seen bopp ngir fexe daal ba ñu génne leen ca kaso ga ñu leen tëj autolekaay bi di direct info du ñu xamal ne li ni mel nag ñi nga xam ne ñoom ñooy ay libéraux ju tëj leen ca kaso moom de la ñuy naat OCRTIS di ab kuréel goo xam ne nag dafay xeex bépp njaay ak jëndum drogue fi ci biir réew mi ñoom de daal dinañuy teg loxo benn réseau boo xam ne nag ñu ngi nekk ci biir plateau juglikaay bi di libération moom moo ñuy netti li ni di ñu xamal nag ne ci lu tolloog ñetti doomu réewum Liban yu nekk fi ci biir réew mi ñoom ñoo dugal seen loxo ci linimel ni mel ñooñu ñëpp teg nañu leen loxo ñu wax ci wàllu lamb juglikaay bi di waa sport ma ngay ñëwaat ci ndam lu rëy li nga xam ne nag moom la Lac de Guiers numéro 2 am ci kaw Papa Sow mi nga xam ne nag moom mooy le piment de face ci biir cuglikaay bii di suñu lamb moom suñu natango yi jox nañu kàddu Gris moom nag ma ngay tëkku ki xam ne nag moom mooy Mohamed Ndao Tyson di ko xamal nag ne ci seen bésub combat googu dee dina def lu mu mën nag ngir war a mun a am ndam ci moom Gris Bordeaux ne nag combat bi bakkanam la ci teg te nee na sax amul lu mu ciy tiit amul lu mu ciy ragal ndaxte bu boobaa moom dina xeex dina dóor dina duma ki nga xam ne nag moom mooy Mohamed Ndao dinay xamle ne nag ak moom moo gën a bokkat nag ci mbër yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir làmb gi kon nag ne na daal amul lenn lu muy ragal ci seen bésub combat googu ñu daal di koy jeexalee ak mbir bu tiis bi nga xam ne nag moom loo jógle kay bii di grand place daal di fësal tey ji ma nga ñuy nettali nag li dal ab xale bu jigéen bu am ci lu tolloog ak ñeent benn dawalkatu sareet daal di koy sàkku ba pare nag daal di koy xoj ba mu mujjee ñàkk ba kenam loo jógle kay bii di grand ma nga ñuy xamal ne mbir ya ma nga xewee ca yëmbal sud kooku nga xam ne nag moom moo def li ni mel daal dinañu koy teg loxo coglekaay euh, bii di grand place ubbi nañu ab lanket ngir xool ba xam lan moo tax mu faat ba bakkenu xale bu jigéen bii di faatu Ba ñu gën ko xam ci turu cekk li moo nekkoon mbax dulukat yi di gën a fës ci biir autolikaay yi ñu leen di ñaanal njaxtu lu bës ak jàmm